sànni ay kàddu. salaamaaleykum wa rahmatulah mbooloo mi tey jii euh, daje bu symbolique la parce que dañu agressé ay liberté euh, depuis les années quatre-vingt-dix la Walfadjri daan am ligne éditoriale bi mu am tey parce que ca booba dafa am journaliste bu ñuy wax euh, Abdourahmane Camara te mu daan bind sous le nom de Abdou Sow. daan bind ay kuréel yoo xam ne man ak samay moroom su leen doon xamee ni xew ci dëkk bi comme ay rapport IGE yoo xam ne gendarmerie da ci épinglé woon benn Siga Sey Coulibaly xaritu première dame boo woon benn bateau ci biir tool doo xam ne dañ ko détourné woon fii keewu port de Dakar ca jamono yooyu laa doon révolté bi ma doon parce que booba Walfadjri hebdomadaire la tey jii boo dégloo Walfadjri lu muy wane ak lu muy lu muy lu xamle bokkul ak lu ñuy gis RTS ñoom ñooy jox nit ñi xibaar bi ñu soxla tigi tigi loolu nag benn nguur mënu koo neex mais dañu nekk ci démocratie suñuy jamono bokk na ci suñu ay revendication bokkoon na ci l'accès des partis politiques aux médias d'État mais génération bi kenn xeexatul loolu parce que média bi xam ne moom mooy euh, Walfadjri tëddee na njaaxaanaay ñëpp mën nañ si wéyal seen kàddu moo tax ñu tuddee ko la voix des sans voix la voix des sans voix bopp la seen yëf la yéen fu ñu woote na ngeen jóg taxaw jiitu seen yëf la ñoo ko mën a défendre kon tey jii du ñu nangu benn dictat buy delloo gannaaw démocratie ci liberté de presse wala ci liberté d'expression rawatina nag mu koy jaaree ci Walfadjri mi nga xam ne moom mooy encore une fois la voix des sans voix bu ñu mënee tey fii ñëw di leen xelal di leen xibaar di leen taxaw loolu vraiment euh, lu mu jar a sàmm la te Babacar Ndiaye tuuti na ci ndërmeel euh, groupe Walfadjri dañoo réeree mbir ne jamono ji ñu toll plus personne n'a le monopole de la division Walfadjri muy continuer di diffuser parce que technologie ak modernité foofu la yem kon ñoom ay cuune la kon ndigal nag yéen it dégg naa léegi ngeen naan Sonko Sonko ndigal numéro 01 jub na mooy ngeen abonné Walfadjri loolu ndigal boobu maa ngi koy fedd li pour ñu jàppale wa rahmatulah wa barakatuh jërëjëf ñu jaajëfal bu baax Clédor

ay taal wax leen Sidi Lamine Niass yàlla yàlla seetal suuf si kawam jërëjëf Sidi Lamine Niass mbokk yi sama xol sedd na bii ci yéen le président groupe Walfadjri Lamine Diawara nga xamante ne liggéey bu am solo la ñuy def où sont les fans de yàq bu koy karle mooy mbokkam waaye dama am gàcce li a ma am ko mooy tey bu ñu taxawee fii ñu ne Macky Sall moo jiite Sénégal bu ko pésiñaan woon fa jël damay am gàcce li tax mooy bi ñu koy coupé moom waroon naa taxaw na leen du ngeen ko coupé ndax bi ma ñëwee doole war fa jëlee ma loxo Sall moo ne woon Amadou ñu may ñun Walfadjri bu ñu gañee danañ leen bàyyi xel koy wax Samba bu doon doon waxee matul fukki nit mais benn presse bi information jotee ñu ko doon déglu ñu ko Sénégal ñoom ñëpp sama oto lañ doon ko déglu yàlla moo tax ma nekk au pouvoir te dool ma jël dama ne Babacar Diagne Babacar Diagne est-ce que Babacar Diagne am na njaboot boo xalaatee yàlla sunu borom Babacar ñu fi jëlee Sidi Lamine Niass jël doomam dégg ko entreprise bii waroon ngaa xalaat sa doom bi jiite entreprise buy fay ay noonu waaye yow amoo doom bu la taxaw kii bàyyi fi doom ko taxaw du dundal ay doomu aadama yow nga ne ko mukk comme sama doom doo jëriñu est-ce que loolu bokk na ci gëm yàlla. Babacar Diagne bul nangu benn état di bale buus ndax bi Abdoulaye Wade bi ñëw Babacar Diagne yow la ñu utilisé woon ñoom Babacar Diagne mu ne bu leen wane Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade ñëw nekk au pouvoir def la bëri douze na la ko wane Macky Sall tey Macky Sall nekk au pouvoir def la bëri douze na la tëjal wal fajër est-ce que Babacar Ndiaye góor nga bilan koy wax ci Sénégal ku ko gën a ñaawle mooy Babacar Ndiaye bilan bu gën a ñaaw ci Sénégal ci àdduna Babacar Ndiaye mooy ki def am na Sénégal dafa am lu ñuy dañuy jaawale entreprise de presse ak groupe de presse war fa jël de presse la entreprise de presse mooy lan mooy buy jur yeneen entreprise te war fa jël bu ñu xoolee li mu tabax ci Sénégal bu ñu ko tegoon mu jox leen benn misaal ki ñuy wax Mati Ndong dañ ko mos a opéré ci hôpital Sénégal am ay wëñ ak puso yu ñu fàtte ci biir mu nar a ñibbi barsax keroog bu ñu ko invité woon war fa ñu def ci débat ambulance moo taxaw buntu woon fa ñu yóbbu ko fa ñu ko ba muy dund Sénégal est-ce que Babacar Diagne moo xalaatoon loolu di nga jël askanu Sénégal pendant sept jours nga leen di ñëw te daal fa jëlee Babacar Diagne adduna raw na la li xew bari ci démb mooy forese tribunal bi pourtant war ko jël wanewul ko en direct mais ñëpp am nañ ko seen télévision kon tey amoon tuuti xalaat rek war naa bañ a coupé sax signalu télé addina raw na la bu Ababacar liggéey nga juróom-ñaar fukki at su dee amoo doom bu laaw ngir yàlla retraite ñu ko di seen la dépense mais Sidy Lamine Niass bi muy am 60 ans bàyyi na fi njaboot ku ko yor Sidy Lamine Niass Baba Gandiaye jërë ngeen jëf euh, yaakaar naa ne léegi dañuy tàmbali euh, invité di ñëw waaye li ñuy wax nag mooy euh, Walfadjri extra bi ñu Walfadjri ñoom bu ñu coupé fi ñu nekkoon la delluwaat ëllëg naka ñun ñi xam Babacar Diagne bu coupé Walfadjri signal Walfadjri bu tuddee aussi bu ñu ñëwee. fi ñu nekkoon la ñuy tegaat suñu tànk kon Walfadjri Walfadjri Babacar kar léegi nag dañuy jox kàddu gi euh, au nom de tous les activistes ji jox kàddu gi Kona Kona activiste bu engagé la Kona واحد الله واحد سلام قولا من رب رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm ci détermination bi peuple sénégalais àndal peuple sénégalais nekkul peuple bu ñuy noot peuple sénégalais nekkul peuple bu yaafuus peuple sénégalais nekkul peuple naa fekk